li xew ci ji jamono bon mat na fukki yëfëg yanant yal nanu mooy diglul ma nettali ko ay kilifa ñëw teew fi wax dëgg yàllam am gàcce ngalaama seen su ndindi bi vraiment ñoo ngi leen sant seen taxawaay yooyu ndax dëkk bi ku ne xam na ne manqué na sécurité ndax man mii Moussa dawal naa sama oto dem guddi ñu agressé damm suma tànk gaañ ma ñi ma pour ñoom sax faatu naa am na ci koo xam ne loxo bi lañ dagg yurtu loxo far benn am na ci paa boo xam ne fii leen nekk liñ ko jëlal kenn xamul nu mu toll kon lu garaw la nga xam ne comme ni ko sëñ Xaadim waxee ñu di ko ñaanal ndax kàddoom yi vraiment kenn mënu cee teg dara kàddu yi sëñ Xaadim yëkkati kenn mënuñu teg dara ci kàddu yi donc nag insécurité bi nga xam ne am na ñoo ngi ñaan vraiment ministre de ministre de l'intérieur ak ministre bi nga xam ne moo yor justice bi mu jàppale ñu ci ba dëkk bi am jàmb jàppale commandant mii nii fi nekk ndax xëy na mi ngi liggéey waaye nag wax dëgg yàlla man moom des na laa gis na man des na parce tamit di toog di ay chauffeur wala ay nit ci ay téléphone ak yu kenn xamul ñun loolu taxu ñoo jóg bande boo xam ne bu ñuy ñëw ëpp nañu fukki nit ak ñaar dañuy yor fetal man gis naa leen parce que agressé nañ ma man mat naa ci wax mat man naa mën naa cee wax man dañuy yor fetal goo xam ne mooy gën a gudd sax fetal téeméeri junni yoon dañuy yor ay raas kullu yori kuur yori jaasi yoru leen mat fukk ak nangam mënaloo leen dara nañ waxante dëgg kon lañ war a def mooy fexe ba dooleel poste poste bii fi nekk muy poste gendarmerie bi dooleel élément yi fi nekk ba bu guddi jotee ñu man a patrouille am gaasuwaal bu doy wër ba fuñ leen wax ne leen jéeye am na fa ñu dem rek la jóg nit ñi toog ñu dugg seen kër di dajji kër ya di di dagg gis na am na benn gone goo xam ne vingt cinq la am bu yàggul lañ ko jël ci station bi muy liggéey loxo bi lañ dagg ma nga jantul max waa ba mu génnee yàggul ak keneen ak keneen ñoo xam ne maar dem yow yow te loolu ñu ko def ñëpp trois cent mille francs lañ jël ci moom loolu ñaaw na léegi nag war nañu wax nag ñi nga xam ne ñun ñun ñii moom la ñuy liggéeyee muy président Macky Sall mu jàppale ñun ñii nga xam ne ñoo dëkk Ndindy ak li ko wër ndax banlieue bi liñ koy toj tojuñ ko fenn nañ waxante dëgg banlieue bii nga xam ne dindi la te dañ koy toj nañ ñu ci jàppale ci sécurité ba sécurité bi gën a doy ndax kenn nelawatul ba yàndool ba may ñibbi bi may ñëw kër kàbb laa ñëw dama taxaw rek dama ñëw ba kër kàbb ci forage bi dama gaare sama oto gis fukki nit ak ñaar yoo xam ne juróom-ñaari nit book ci li ma gis yenn heure deux heures du matin gis juróom-ñaar nit ñoo xam ne dañu déparé dama gis kenn ki jaasi la yor bi mu ñëwee bi mu xàccee jaas ji fii la ma ko dóor nii fii dafa daggoon ma téye loxo bi keneen ki daw jël jël kuur dóor ma ñeneen ñi ñëw di dóor di ma dóor koñ bi am na ci koo xam ne comme foofa am na ay dëkkandoo bi mu bëggee génne bunt bi bi mu ko dóoree bunt dénk bi mu ko dóoree jaas ji dafa xaaju ñu dóor ma maa ngi jàppanteek ñoom di ci góorgóorlu ba téye kuur gi ba téye kuur gi mais terewul comme téye naa kuur gi moom mu ne léegi nañ fexe dóor tànk bi mu damm nga xam ne bi ñuy dóor sama tànk bi dañ ko dóor mu damm ñett damm damm ñeenti damm damm après man ma tëdd mënuma ci dara ay dëkkandoo ñoo ma fekk jël yóbbu ma ci koo xam ne trois cent quinze mille francs rek lañ jël ci man bariwul jël suma oto yóbbu ko yàlla mi ñu dimbali kii laa àndal ne ko damay waaj a paan gaasuwaal nañu dem ba ba ba ci station bi ñu sol fa biñ ñëwee ba ci station bi borom station bi na wàcc naa guddi na oto bi amul gaasuwaal ñu dawal ko ba Daaru Salaam ñu paan fa gaasuwaal defe ne dañ ko fay bàyyi fa oto daw dem bàyyi oto ba bu yàlla dogalutoon loolu kon oto bi sax mën naa cee bañ a jotaat parce que moom moo leen taxoon a jug ñu jël noonu lañ def bi ñu jugee ci man dañu dem ci koo xam ne bàyyi la ci man muy alaaji Gay fekk ko këram ne ko alaaji tijjil tijjil kër gi tijjil mu ne ah, ñu ne ko tijjil mu tijji laataa muy tijji dajji nañ bunt bi dóor ko jaasi lañ ko dóor maa ngi moom ñoo bokk nekkoon hôpital fii lañ ko dóor jaas ci bopp bi nga xam ne bi muy ñëw mi ngi man maa ko tane man mi damm dóor jabaram nga xam ne dafa amee jabet donc yàgg na hôpital Dakar lu bare bare bari xëy na jëluñ ci moom xaalis na xaalis fi ñu ko tegoon ak gars yi coffre bi ñu jël teg ko ci oto bi utee na te pourtant fetal gii ñuy wax ne nit ñi amoon na ko paa boobu amoon na ko fetal gi sama oto lañ ko fàtte nit ñi mën nañoo yor fetal mais tëdd ba guddi toog dangay toog ba mu yàgg rek ñu ñu tëj sa bunt dal sa kaw. di après enquête bi woo naa commandant ne ko fu sama enquête toll ndax dañ ma agressé te yóbbu suma téléphone ndax suma téléphone rak yóbbu nañ ko joxe naa filiation yeeg yëpp. mais dégguma ci dara mu ne ma ba léegi ñoo ngi ci enquête bi mooy yéex man nag maa ngi toog di déglu yoon waaye nag dama bëgg mu ñor leen ni leen ñore woon ba ñu reyee seen commandant ba nam leen ñore woon bañ enquête ko ñu xam ne ñun waa Touba ñu fi dagg seen loxo dagg nañ fi nit loxo paa bi tëcc nañ ko baaraamam dem na man mii ñu damm ma am keneen koo xam ne bopp bi lañ xaañ bopp bi lañ bopp bi lañ xaaj presque ci digg bi te dañoo même pas trois jours gendarmerie police ak yëpp dafa jug def enquête lijjanti bande ba def loola jàpp ko ñoo ngi koy ñaan taxawaay ba ñu amoon foofa ñu am ko ci ñun ñii te xam ne ñun ay sénégalais lañ. waaw presque def naa ci ay un million ay presque deux millions et quelque ndax ndax ndax ndax booy faju faju mi wax dëgg yàlla métti na. tëréwul nag maa ngi sant président de la république ndax mooy njëkk yónnee na délégation ci man yónnee fa enveloppe ne na ko Moustapha Fadio waaye tëréwul la ñu yónnee. wax dëgg yàlla am fajoo naa lu ëpp lañ ma yónni ñi ma àndal ñëpp xam nañ ko parce que bu dul dara man dama doon jëriñ dama leen doon jëriñ te man liggéeykat laa donc sama alal laay jël di ci def loola mooy kii beeg yooyu ndax lu ma mën a dalit man man quelque soit alfa waaw jërëjëf li xew ci jamono bon mat na fukki yëf ak yanant yàlla nanu mooy diglul ma nettali ko